والقلم وما يسطرون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 yàlla yëpp bi ma jëre àlla yëpp bi ma jëre àlla yëpp bi ma jëre bi jaani bi sallallahu alayhi wa sallam waa sëñ bi wax yi mu fi wax léegi ci kalaama pulaar mooy di leen dal di leen dalal ci ci euh, da daara ji nga xam ne seen daara la daara bi ñuy tudd daara Cheikh Harouna Silla sam pap moo tudd Harouna Silla ma tuddee daara ji sama turu papa ndax moom moo jur di yar ma jàngal ma alquran waaye kon lu ma am rek moom laa ko yéene donc ma tuddee daara ji ah, su ko defee nag ñii ay taalibe la ñoo xam ne dañoo am interne ak externe xëy na ñoom ñëpp fekk teew teewewuñu waaye nag ñi fi nekk tey daa mel ni ñoom ñoo fi teewal ñi fi eh, nekkul kon su ko defee di la wax ne rek eh, fii de ñu ngi jàngal alquran hamdulillah bu baax a baax mais dañu ci boole jàngalem diine waaw ñiy jàng daara ji dañu leen di dugal ci kala jàngal leen diine jàngal leen luxal arabiya ba luxal faransiya dañ boole ñaari yëpp ndax ñu gis ne xëy na ci ndimbali yàlla balaa ñu mag bu ñuy mën a yóbbaale rek li bëri mën nañu mën nañ ko njëriñu bu soobe yàlla donc ci gàttal ñu ngi leen jaajëfal ci seen teewaay fii si daara ji di leen naan yàlla ñaanal yàlla yàlla yàlla fay leen yàlla na ni yàlla fay nga xam seen taxawaay taxawaay bu rafet la taxawaay bu am solo la taxaw wallaay bu taxaw bu taxaw lislaam la eh, te lislaam yëpp ngeen taxawal ndax képp ku taxawal alquran moom julli ñëpp nga taxaw kon su ko defee rek ci gàttal ñu leen sant di leen gërëm leen ne alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu ala wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Cheikh Mahmoud Haroun ñu ngi lay nuyu lu bari Euh, di kontaan trop ci fekk leen fii ci daara ji daara Cheikh Harouna Sylla di bëgg trop yàgg nañ déggante yàgg nañ liggéey ay at yu bari waaye tey la yàlla dogal ñu ñëw fii kontaan nañ ci loolu bu baax yëg nañ ne suñ kër lañ ñëw yëg nañ ne aussi suñ daara lañ ñëw euh, ni nga waxee léegi rek muy euh, société C3S moo ñu yebal ñu ànd ak Mamoun Fall tant que secrétaire ànd ak sëñ Mourtala Gaye mi nga jàkkaarloo mm-hmm. ànd ak suñu Omar Ñaw mi mm-hmm. mu yore oto bi mm-hmm. ñu ñëw nag ngir ab liggéey boo xam ne maanaam dañ seetlu ne alxuraanu karim ci Sénégal bu dee ci wàllu wàllu mokkal am na ci jéego bu rëy rëy boo xamante ne bi réew yu bari jotuñ ko ci ba tax na concours yu mu dem Sénégal bokk na ci réew yi jël première ba loolu ba loolu àddina bépp nangul nañ ko Sénégal waaye dañuy gis ne côté boobu moom mu ngi dox loolu tax société bi moom comme dafay ne nekk nit ci daara nekk ñoo xam ne seen waajur ay seen daara lañ doonoon comme ñun ñoom ñu jóge ci daara bi ñu demee ba liggéey ba pare xool côté boo xam ne gis nañ ne laaj na taxawaat ñu ne nañ ci jëmee suñu liggéey mooy yaatal mbindum alxuraan tur yi rek boo ko déggee danga koy xam bu baax musaabaqa ne fii rasmil quraan al karim wal xat al mahalli loolu mooy euh, moo waral ñu ñu am euh, mubaadara def maanaam concours bi daara joo dem bu njëkkoon da daan fekk kaamil yoo xam ne suñ mag ñi ñoo ko bind kaamil yi ñu bindee loxo kaamil yooyu daanaka dafa commencé jeex daar yi nga xam ne baaxoo woon nañ di bind loxo lu mel ne ñun suñu aada la soo mokkalee da ngay bind ñaari kaamil kaamil bu njëkkim nga jox ko ki lay jàngal bi ci des nga jox ko sa sëriñ door tàmbali jàng xam-xam ñun noonu la ñu waaye daara yooyu dafa commencé mbind dañ ko commencé bàyyi daar yi rawatin daar yi nga xam ne duntoon seen aada loolu moo tax bi mu xalaatee xalaat bi ñun ñu rafetlu ko ndax loolu lañ xamoon démb fexe ba delloos minum senegal ba nii ñu nii ñu mel ba concours fu ñu dem ci wàllu jàng bokk ca ñi jël première te teewul daara ju ñu dem benn nga fekk kaamil bu ñu kaamilu Tunis wala kaamilu Maroc wala kaamilu Algérie wala yu wala wala yuñ moolee eh, Mamlaka Arabi Saoudia te réew yooyu saa yu ci wàllu jàng Sénégal lee moo leen di jiitu waaye bu néewee ne ci wàllu bind moom ba léegi dafa des kon ñu ne jot na ñu fexe nag am kaamil boo xam ne maanaam mushaf sénégal yi lay tudd boo xamante ne bii dañuy fexe mu am daara joo dem fekk ko fa loolu euh, sharika bi ci loolu lay dox moo waral mu initier concours bi tisaare ko ci réew mi tisaare ko ci fu bari euh, mu gis ne nag euh, dafa seetlu ne ñaari at yu njëkk yi saa ñu ko defee au niveau national waa waa markaz bi ci digg Sénégal Jurbel région ñoo koy jël parce que seen aw xat ak ak ak ak bi bokkut. loolu moo waraloon ñu nekkoon nañ ber sud bi. defal leen seen concours régional bu bopp. ngir ñoom ñu mën a rawante ci seen biir. ba bañuy mën a dab maanaam digg réew mi ci wàllu ci ci wàllu bind. ba xam nga daaw édition euh, bi passé ñu ko defee woon ci Ziguinchor. léegi nag ci loolu ci la xool ne euh, samara bi nga xam ne concours bi jur na ko ci lu ñu mën a wax ci luñ teg bët bokk na ci maanaam ajsaa yi xale yi bind. bind nañ gisu boo xam ne gisu tabaaraka buñu andi wuñ mais bi ñu andi fii mooy jusson am may ameeti saayalun la mm-hmm. xale yi yi ba deuxième édition ki ñi jiitu ñoom ñoo ko bind ci seen loxo mm-hmm. ñu dañ bëgg nag léegi exemplaire yi ñu tasaare ko ci mbooleem daara yi mm-hmm. jox ko xale yi ñu di ci xool naw xatu di ci jàng def ko comme modèle di ci jàng bind bu nee ba ci kanam danañ man kaamil bi ñu soxla boo xam ne waa réew mi ñoo koy bind dan danañ ko mën a am aussi def benn baas bu mag boo xamante ne bi baas bi caractère bu mag lañ ko bind bëgg ñu def ko ci daara ji comme modèle xale yi di ci di eh, di ko di ci di ko gis di xool lettre mbiru Sénégal nan la meloon démb lii daal ci tënk Cheikh Omar mooy suñu jéeg la ñu tax ñu liggéey bi seen loxo la des ñu gis ne la jàngal xale ba mokkal un dixième boo ko defee xale bi mën bind mais na xale yi daara yu bari jaar nañ fa ñu ngi bind mais modèle lañ amut modèle lañ amut mais ñu ngi ko bind ci riwaaya Warsh an tariqil Azraq ci lañ bind mbind mi ci lañ bind mbind mi kon daal ci tënk Cheikh Omar Aroun ma joxaat kàddu gi nga tënkal ko leen ci polaar incha allah salaamaaleykum jërëjëf jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu. jërëjëf Cheikh euh, Sëñ Sam Mbacké euh, kontaan nañ ci bu baax sa kaddu yu rafet yi sa kaddu yu leer yi euh, te ni nga ko waxee exactement noonu la ndax man ak yow d'abord lu jiitu lii yàlla def nañu xamante waaye ngir alquran bi ndax ku nekk ci nu yàlla def def na xëy na mooy mooy bëgg-bëggam bëgg alquran di liggéeyal alquran. di len sant di len gërëm léegi mo xat tuuti ci bula eh, ko ɓe ngarɗo ko ko ɓe kalannoɗo ko joni on keɗo ɗon kono fof haalante kamɓe ɓe kolli sénégal fof ne andi janga alqur'ana reena aduna o fofof ceerno yi aduna o fofof jaɓani jaɓani jangina janga wawa renna alquran aduna o fof jaɓani ɗum sénégal so a ƴeewi kala concours aji arabi saudi koyet égypte kala e aduna e fof sénégal gaño ɗum noon holliri ndeke eɗen janga eɗen paama kono noon si a ƴeewi saudia jogii muul maɓɓe ɓe jogii musaf maɓɓe maɓe jogii kamilu maɓɓe tunis jogii kamilu maɓɓe jazair no jogii kamilu maɓɓe égypte no jogii kamilu maɓɓe aduna o fof fof leƴƴere kewɗi haa nigéria ene jogii ɓe jogii mana bindi maɓɓe ɓe jogii bindi maɓɓe entiére kono sénégal ko mbawɗen ko fof en e mbaɗani enen ne tabu muul muul mo ganduɗa ko mushaf wiye ko deftere kamilu sénégal pourtant ko adino ko mawɓe men folo folo so a renino alquran ha gasni ɓe bindinama alquran kamiluji ɗiɗi kamilu goto o gokka ɗum jangguiɗo ma o oɗa gokka ceerno maɗa o on suma janggoya saria janggoya ulumuddin nden ko noon wa'ateno ɗum noon joni ustima allah waɗi noon c 3 neɗɗo moƴƴo seni ko neɗɗo moƴƴo o yii oɗo faayida ndeɗo moƴƴere yo sénégal wallu hoore muɗum ha wawa windande hoore mum kamil wona tabo sénégal allah waɗi noon ɓe puɗɗima concours ɗi mbaɗanno on sa'a on sa'a ko jurbel e tuuba en ɗon tan ɗon tan ɓe tawi noon ɓe jajjin ɗum rowaninɓe puɗɗima ɗum ɓe mbaɗi zigansor hikka matam waɗoyte ɓurɗiɗo raison kadi naata e ngal e gandal mbawa alqur'an binda kadi alqur'anil karim oɗo kanko cheikh 3 so c 3 so waɗa e haalis makko e o fi sabilillahi ha qur'ana o ɓeyde wawede e ɓeyde joguede o immini ɓeɗo noon sedin sambakke e commission makko o fofob seyñ mahmoud fall mamoun fall e seyñ mourtala gueye e seyñ oumar ñaye ɓe mbaɗa tourné région ji ɓe mbaɗi région zigansor ɓe mbaɗi région sédiou ɓe mbaɗa région kolda ɓe mbaɗa région tamba ɓe mbaɗa région kedugu on saabi ɓe puɗɗa hoodde touba ɗum woni laawol maɓɓe hannde noon ɓe ngari e welingaraɗo ɗo ɓe puɗɗani en ɗo ɗo daara cheikh mahmoud alharuna silla yo allah jaɓan en jaɓana ɓe yo allah jaɓan ɓe yo allah wallu en yo allah wallu ɓe yo allah fewnan en yo allah fewnan ɓe yo allah moƴƴinan en moƴƴinana ɓe gurdam juɗɗam e cellal e hattan e doole e kattan e ligganade l'islam yo allah yo moƴƴere amin senin mu ne muy lu muy wax fii dafa kontaan dafa xam sa takkuwaay mu ne yàlla na yàlla fay yàlla ku maandu la du tooñ du naxaate du wor maandu na ba nga xam ne du la du la liggéeyloo lu xamante ne du la ko fay loo xam ne rek loo gis rek moom yàlla liggéey naa la loolu mu liggéey loola loolu dafa laa bëgg a fay su la narut a fay du la liggéey la lu baax kon la na yàlla fay yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay yokku sa man-man bi sa xam-xam bi sa wér yaram sa wërsëg bi sa diine yàlla na ko yàlla yokku yokku la ba pare sax ndax ko liggéey alquran santal yàlla bu baax yow yaa ngi ci mbokku ci ahlullahi ah, hadis bi loolu la wax lillahi ahlun qiila man hum ya rasulallahi qaala ahlul quran hum ahlullahi alxaamilul quran aw xaamilul quran hum ahlullahi xaasatun wa xaasatuhum wa kon yow lu ñu la wax rek bég kontaan moo la ko wax loo waaye loolu loolu yàlla defar la ba pare def ndax man sama baay alhamdulilahi rabbil alamin am na njaboot na bu baax a baax njaboot bi dafa bëri waaye ku ne boo ko taggoo maa ngi demal mooy Mahmoud mii saa yu ñu ko tàggoo dama bugg a dem ma dem ut sa xaalis ne daara ji wallahi daan loolu mu ko wax rek mu ne ma daara ji mu njëkk bu njëkk dama doon bañ rek mais ooy benn at rek quatre-vingt-quatre ma voyage ma bugg dem tukki ma am accident bii nii ma ñëw mu ma daara ji demal jàngale lii laa la bàyyil lii laa la wax moo tax daara rek laa bëgg lool rek laa bëgg munu ma nag ma waay waay bëgg na moo tax nag képp ku ma gis maa ngi taxaw muy taxawal daara pour man man ngay jàppale la ndax li ma li ma bëgg loolu nga bëgg loolu ngay defar kon loolu duma dugal guddal wax bi duma guddal wax ji sama kontante rek ak sama mbette rek seen teewaay bi fii moo ma wax loolu yëpp jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim بنعمة ربك بمجنون